amati mbégteeg bànneex di ànd ak yéen yéen ñu ñu teewlu ci 5M TV Sénégal jërë ngeen jëf. ci teewlu bi mbokk internet yu 5M TV Sénégal coow lu rëy rek lañuy ñuy daal di nemmeeku foofee ca atel mu nekk rek ab kuréel boo xam ni ñoom la ñu wax ni moom la ñuy amal ci dëkk bi mooy saytu élection yi rawatina élection législative yi nga xam ni dana am ci nag weer bi ñu daal di jëm si tax na. mu mel ni sax nag ab coow loolee maître El Hadj daal moo ko njëkkee moom kàddu yi mu yëkkati nañu ko xamee rek na muy waxee saa su nekk ginnaaw gi sax nag ñoo plateforme bi lañuy xeex bokk na ci wàllu politique groupe bi kon taxaw bu baax a baax jëm ci bëgg-bëgg yi nga xam ne am nañu ko ñeel kon rek dépôt liste yi nga xam ni mooy am ci gox-goxaat yi jëm ci bi de élection tax nañu initiative boobee kon ña ci ëpp nag bokk na ci. ñi nga xam ni rek kon ñoom ñoo nekkoon ci wàllu politique bi rawatina ñu doon xëccoo rek ak li nga xam ni moom mooy présidentielle bi Khalifa Babacar Sall njiitu coalition taxawu Sénégal moom ca saa saasa daal dinay àddu ginnaaw gi sax la ñu xamal kon Maître El Hadji ni na yem place am nag fi mu nekk ni dafa bokk rek comme ñëpp kon warul jël mbir mi di ko féetalee ca boppam tax na ginnaaw rek ba mu yëkkati ay kàddu ñu xamal ko ni ko daal ñoom ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg ñoom ñëpp itam ñoo bokk fa ñu jëm muy rek di xool élection yi saytu ko ca anam ya mu waree mooy élection yi nga xam ne rek kon jàpp nañ ni fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre. décembre lañ koy amal ci loole itam bëgguñu benn rek tension am bëgguñu itam benn xuloo benn rek xëccoo am ci mbir mi Khalifa Sall sax moo ci kàddu yooyu wax ko nag ndax la ñu bëgg rek mooy élection yu jaar yoon alliance nag pour la transparence des élections di ATEL dafa nekk rek benn kuréel boo xam ne day yëngatu ci wàllu politique ñu daal di ko fiy teg ci septembre bi nag catum 2024 mu am lu tollu ci téeméer ak fukki parti ak i mouvement yu nekk fii ci Sénégal bokk ca biir solo si rek mooy kon ñu rekk daal di saytu lu ñeel wàllu politique bi ñeel itam wàllu rek élection yi anam ya muy tëre anam ya muy demee ca nag nañ koy tëralee ba mu jaari yoon. sëriñ Fallou borom njëriñu askan bi di borom xam-xam bu mag bu kenn dootul naatable xam-xamam ci wàllu seet listixaar lasraar ak ñaan sëriñ Fallou borom njëriñu askan bi amu ci morom yow mi rab jàpp wala cat sonal la sa wërsëg tëju loo yaakaar mu tas wala nga bëgg a wala nga tukki bëgg am ay kayit ngir ñibbisi wala nga bëgg soxna wala nga bëgg borom kër dawal gaaw jokkoo sëriñ Fallou borom njëriñu askan bi mu faj sa aajo ci lu gaaw a gaaw seet ak listixaar bu wóor wan say mbir ba lépp leer ci yow loolu moom ñëpp maase nañ ñi amu ci morom ngir jokkoo moom wooteel ci numéro téléphone bi 630 71 97. 75 630 71 97. ak Serigne fallu borom njëriñu askan bi njëriñu kese la.